Mm. ne ko moom dafa problème xam na problème bi mu am na dem réglé ko. ne dafa am bataay bu doon bu mu doon joué fu ñu ko waxee Tapha mun na ma ñemoo ma Tapha Tine ne loolu jeu doon def. moom bu xaar ne ñu ko mësee proposé Tapha mu ne ma ñem man man sama wàllu bopp man maa ñemewul Tapha Tine mais nee na loolu jeu la woon te jeu bi atteindre na ko fi mu toll nii. billaahi wallaahi wataalaahi boo indee sabar ma dugal ci sama loxo ne pour xaan moom ci bam ñemewul Tapha Furqaan mii ménagère bi. waaw mën na ko bañ a ñeme mais. ñeme naa dugal sama tafaatin ma dama ko xam moom xam na man xam naa. parce que sama grand la toog chaque jour. saa bu ñeme la maa ñuy lang seen nii di xamante nañu. mais est-ce moom ñeme na tafaatin. kan ci Boy Niang bu ñemewul tafaatin fu muy jëm. donc lu dul ni Boy Niang bu amee ku muy ragal ci làmb ji su ba amee boo tikki nga am utal koy nag mu dem sàmmi Boy Niang bu amee ku muy ragal ci làmb ji na dem yi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 quatre combats yi xew est-ce que est-ce que ñoo ngi leen koy proposer wala boog yéen a ngi ci. lu gën a yàq làmb ji nag mooy loolu doonu ci kanam xam nga lu koy yàqee. ñi ñi jël quatre combats trois yëpp suñu amee defet mooy indi problème boobu mooy indi problème bi. ci naan. parce que xëy na Balla Gaye mun naa di mun na jël combat mun naa daan mun na daanu amul problème parce que moo jël ñu ñëpp. waaye ñooñu ñeneen ñi bu jël ñëpp ku ci daanu jaratul ngay dem di bëre ak Balla Gaye doo dem parce que day yàq sa xel ku ci jël defet fii nga dem nga taxawaat ak Balla boo amul sax da am deuxième defet te ku ku mu ci mën doon nag ñoom ñëpp laa wax te même Balla Gaye loolu mën na koo arrivé bu dof dof loo bu am defet deuxième combat mënoon naa ñàkkaat amaat défaite loolu loolu dañuy yàq lam ji ñaata mbir fi ne duñ jox yeneen mbir yi avance yi topp benn mbir ñaari mbir jox leen quatre avance ban njëriñ la